Vamos de objeto. thème bi ñu doon euh, développé moo nekkoon euh, tolérance ak euh, jàmm nan la ci maanaam nan nan la ci sëñ bi sëñ sëñ bi doxe waaw xam naa damay jox sëñ Mafal maanaam mu développé maanaam ci introduction bi bu ko defee bu ci kanam ñu jéem a xool détail waaw asalaamaaleykum comme ni ko sëñ Ablaye waxee exposition ren bi day dañ koo def ci ren bi ñaari fànn bi ci njëkk bi mooy maanaam ñu def benn focus sur l'exil en Angleterre wane wane ñu mu jàmmarloo histoire bi exactement présenté ko li ci topp mooy bi nga xamante ne thème bi nga xam ne moom la ñu présenté mooy tolérance et la paix dans les enseignements du Cheikh ndaxte doo seete si jamono ji doo seet nous avons trouvé que thème bi dafa gën a pertinent ci moment boo xamante ni jamono ji dafa xaw a jaxasoo te jaxasoo boobu lu lépp lépp ñàkk tolérance moo ko war te la xamante nag ñun sëriñ bi comme jàngaloon nañu ko boo tax nous avons estimé que tey jii am amul benn thème boo xamante ni moo gën a porté ci la tey jii nii ñu présenté lu ñu mel ndaxte doo seetee coow li ci àdduna bi bari na li ko lenn moo xam ne ëpp mooy ñàkk toléré mën a toléré par exemple sa morom loolu doo seetee par exemple fu ma nii ñu ngay dégg fay na ci Moyen-Orient par exemple xamante ni ñoo xam ne ñoo dëkk boobu ba léegi ñoo dëkk te mënuñoo xamante ni manque de tolérance moo doo gisee même ba doy ci le plan économique dafa am ku ci nekk ngay jéem a imposer sa race wala sa benn domination boo bëgg a def loolu pour yaakaar ni thế thế mình mình cái lúc bán được nào, ngóng, day jéem a dominer sa morom te fekk loolu tamit manque de tolérance la te sëñ bi nag moom yooyu yëpp boo fekkoon na moo waajaloon ko ba jàngal ñu ko ba diggal ñu ko ñun mur yi ñun mbokk ñun taalibe ji nga xamante ne ñoo ko yaakaar yi nga xamante ne lépp loo yéene sa bopp bu neex mu naqari da nga koo war a yéene sa morom moo lay doon même ci doone ci relation inter état yi tamit également parce que peuple yëpp daanaka doy seet ñoo yooya du kenn du nangu koo xamante ne da ngay nhiều điểm ñëw có imposer có que moom it đó bi đấy, seetee loolu la fa tubaab yi indi woon lool ci la xeex te it loolu dong la ñuy jàng dafa nag di jàngal nag ku nekk doo loo mën a ba sàmm sa ngoon maanaam ngay liggéey di jariñu bañ a def lu mel noonu mais nag lépp ci tolérance dëgg lool mënu jur jàmm loolu daal xam naa ni jàpp nañ ni waroon nañ ci lañ gënoon a kii pour ko defee ku ci nekk ñu ngi jógee ku ci nekk mën a jariñ loolu daal jàpp naa ni jàngoon nañ ko ci mbir mi. bu ñu ko misaalee li ñu doon misaal sànq nasaraan bi mooy islam bu jëlee iman islam ak islam ñu gën a euh, teg sunu tànk ci wàllu euh, ginnaaw bu ñu tegee ci sunu tànk ci wàllu iman ak islam euh, teg tamit sunu tànk ci wàllu ihsan ndax ihsan maanaam dafa yaatu te laaj naa yaatu waaw maanaam boo xoolee tolérance ak yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne maanaam dafay taaral diine waaw dafay dafay dafay dafay taaral diine buñ maanaam tey bu ñu indee suñuy valeur ba ba ba ba xeefe police police nationale ñëw euh, ay ay ay maire ay ay yëpp maanaam mooy valeur yi nga xam ne moom lañu sëriñ euh, jox maanaam ñu koy waxee sànq maa ngi nasaraan nee naa ko mbir mi nekkul loo xam ne nii rek maanaam dan dan ay ay valeur la ay valeur la maanaam ñi ngay gis ñu toog ñëpp dafa am loo xam ne dañu ko bokk muy ay valeur valeur yooyu nag maanaam moom la ñuy doxe di ko waxee looloo waral tey jii maanaam ñu mën yaatu États-Unis yaatu yaatu yaatu biir Europe yaatu asi te te yaatu gi incha allah dafa day gën a yaatu ndax Serigne Touba moom amul euh, amul amul euh, amul amul lor njariñ njariñ rek la am te doomu aadama boo gis nag maanaam ci àdduna fi nii rek lay wër waaw njariñ rek rek rek daal lay wër waaw xam naa maanaam ñu jox ndox mi bu fekkee am na ci xam ne ñu waaw ah, man de man de Serigne Ba naa xaw ma lu bëri si wax parce que tamit bu may gis yàlla xam na ne bu may ñëw sax xaw moon ne sax ni thème bi tolérance la aussi li ma gën a yéem si affaire bi mooy ni xefe étranger bi fi ñëwoon sànq ba mu ñëwee sànq bu jubal ci ci photo sëñ bi daf ne daf ne ma kii mooy prôné la tolérance bi ñuy wax affaire man ko waaw dëgg la la te boobu xaw moo sax ne ñoom ma faala ko gars te mu toll tolérance ma ne ko moom la parce que soo xoolee aussi tamit li mu jaar ak li ko tubaab bi dundloo yëpp yóbbu ko lu nekk def nañ ko ko ba mu ñëwee ba ba mu ñëwee ba ñibbi si dëkkam daf ne baal naa ñëpp ma ne ko euh, mënu ma ah ma ne ko waaw loolu wax mënu ma dëgg la parce que loolu dëgg loolu soo ko xool xool xool xool xamal ne loolu tolérance mu ne ma ma ne ko aussi tamit si biir tolérance boobu aussi tamit dafa am lu ñuy wax convivencia maanaam man peut être ñun ñi nga xam ne peut être ñoo nekk fii Espagne di dund noonu doon ay immigré soo gisee tamit ñu jël suñu carte invitation jox leen ko dañ bëgg aussi tamit duggante bi am suñu suñu biir

demalante te lépp aussi loolu lépp aussi tamit lu ñu ko may mooy seen yar bi nga xam ne am na ko xam ne am nañ ko wan yar nañ ko Sénégal yar nañu ko aussi tamit yar bi nga xam ne yam nañu yar Sénégal ñu indi ko fii si si réew mi suñu sama xef bi may liggéeyal fu may liggéey dafa ne ma baaw ko mun ma munu ma demen de soxla naa ay liggéeykat mais xam nga laa soxla munu ma Sénégal kese laa soxla Sénégal bugguma bugguma ni xeer bugguma keneen parce que gis naa si jikko yoo xam ne gis ma si beneen xeet donc lu euh, image boobu nga xam ne peut gis nañ ci ñun ak yar boobu ak teggin xam ne am nañ ko kon donc moo tax moo waral lépp li nga xam ne peut-être euh, bëgg nañ ko si réew mi suñ si góorgóorlu incha allah yàlla dinañ ko defal ci barke sëñ bi. waaw maanaam euh, li ñu toll nii bu bu fekkoon kenn ku nekk ci ñun da indi sa xarit boo xam ne da ngeen doon waaj a da ngeen da ngeen di ci wàllu àdduna ay nasaraan kon sëñ bi saal bi dina dina dina fees. waaw dina gën a fees am day yëg moom boo defee mu yëgal ñu ci ci thème bi incha allah waaw muy wàllu tolérance ak jàmm. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou moom xanaa day day moo tax xanaa ñu sañ cee wax waaye bu dul woon ndigal moom sañ ñoo wax ndax xam naa ne bi ngeen bi ngeen di wax moom mënul génn ku tedd ki te ku tedd ki moom bu ñuy wax moom tolérance moom ci moom la fekk baax waaye rek dañuy xool fa mu cosaanoo ci suñu borom moom bu nu sàkkoon ne dama leen dama leen bëgg te boolewuñ ñëw yërmande su boobaa maanaam tolérance boobu di yegsi ci ku tedd te mission daf ko accomplir ci naka mooy il a œuvré pour Dieu à travers ses îles ndax koo xam ne na xeet natt bu ne ab yenent bi fu mas a jaar natt buñ la teg teg nañ ko lépp mu dangañ di wëy te tawatul balaaya wax dëgg fa yàlla lii rek la bëggoon ñu ñëpp ñu am liberté totale am démocratie ku nekk am sañ-sañ yi ci li ngay yëg ci yàlla nga di ko dund ndax foofu la yàlla tàmbalee ci lépp foofu la tolérance tàmbalee itam yaakaar ndax kii gëm ak ku dul gëm ci suñu borom képp lay soog moom nag ci yërmande moo nu baaxee ñun Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul muy kéemaanu yàlla di yërmande jàll Muhammad Rasulullah ñëpp nangu nañ ne moom ndawal suñu borom la waaye Khadim Rasulillah kéemaanu yàlla la yërmande jàmm ja te wallaahi al asim yaakaar naa ne ci aw maanaam kuy mbubboo ku tedd ki ak ku mën a doon ñu ñaaxaat ci suñu bopp te xam ne ku tedd ki moom léppam yërmande ndax benn bay rek da koy firndeel ci ki fi di sëriñ saalix nga xam ne moom mooy yërmande suñu borom di al saalix yërmande moom benn ñaan lalan ñaan benn benn xasida lalan gën di ñaane muy la yaa rahmaanu yaa rahim te ñëpp xam ne yaa rahmaanu yaa rahim mu yërmande la tolérance nag ci biir yërmande lay tàmbalee fangoyte ya malikal mulki ya man jal arhadi irham jami ora ya hadira daha yermande fa la tambale te fa la jeexi tam kon ku tedd ki waccio na ñep xana di gëna ñaanat rek mom ñu gëna gor gor lu wat ndax ma mare ma def ne won de ab talibi de kumpu mo eh, ci dugal nit waye ngoro koy yegal waye mom amna ngor yalla ñu seyal ci ngorom li mo nekkon li nga xamne mom lañu wajalo ren ci édition 2016 di len jox dox dajé ba màggal déwén incha allah. ak saa jërëjëf. El Vom Audiovisuel.